Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour euh, tey àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett suñ jógee foofu dañuy dem fële ci ki nga xamante ni Omar Diop dippee boppam borom solution Omar Diop nag nee na moom bépp nit bu am problème ci àdduna bi solution am nañ jàpp ni que borom solution dafa mel solution daf ko tëj jamono ji ndaxte jamono ji dañ ko interpellé ci loo xamante ben présumé escroquerie la boo xamante ni mi ngi koy plongé ci ay grave problème yoo xamante qui dit di Omar Diop su coup maanaam coup, ni muy fajee solution jaamur yi moom du am solution solution ci problème bi nga xamante ni ko nañ ci manam muy Omar Diop borom solution suñu demee fële ci élément section de recherche yi nga xamanteni ñoo nek ci gendarmerie bu Thiès bi ñu interpellé benn bande bo xamanteni ay nit la yo xamanteni dañ leen présenté comme ay escroc nek ci internet bi mu donon ben figure bo xamanteni dañ leen xam bu baax kiñ ci gëna rañé nak muy ki nga xamanteni moy Cheikh Omar Diop borom solution en tout cas borom solution dal bi nga xamanteni mo don proposer ay solution ay nit jamono ji section de recherche bu gendarmerie bu Thiès daal dafa melni dañ ko interpellé ci lo xamanteni ben affaire escroquerie la boo xamante ni ñu ngi ko jaarale ci internet bi ba tey suñu sukkandikoo ci borom solution suñuy information yi nga xamante ni jot nañ ko te journal quotidien daal di koy relayer enquête daal di koy wax mi ñi ñuy xamal ni que daal lii di annonce boo xamante ni dafa explosive jëm ci réseaux sociaux yi ginnaaw benn prédiction boo xamante ni. attiré woon na ñi nga xamante ne mooy ay nit yoo xamante ne dañ nekkoon ci détresse ginnaaw loolu nag kii di borom solution moo leen proposé woon ay produits yoo xamante ni

ay clientam ci suufu nak ben fausse identité bo xamanteni ni mënoon na xamloo nit ñi que pouvoir bi mën na échapper li nga xamanteni moy justice batay suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni ni nañ ko suñu ay source fofu ci section de recherche bu Thiès ginnaaw bi nga xamanteni déposer nañu ben plainte victime yi daal di koy déposer mo permettre ñi nga xamanteni moy policier euh, policiers yi daal di interpeller ki nga xamanteni moy Cheikh amadou Diop ginnaw lolou nak biñ ko déféré fofu ci tribunal de grande instance bu Thiès lu xam dal actuellement jamono ji ñi ngi ko tek sous mandat de dépôt en attendant jugement am di teew en tout cas kii nga xamante ni mooy Cheikh Omar Diop di sëriñ bi nga xamante ni moo doon proposé ay euh, liggéeyam ñii nga xamante ni dañ nekk en situation de détresse muy borom solution maanaam bépp problème boo mës a am ci àdduna moom am na solution pour fajal la ko jamono ji dañ ko jàpp ci wàllu escroquerie boo xamante ni dafa nax ay clientam maanaam via internet ak benn complice boo xamante ni gujaa bi lañ ko tuddee jamono ji daal yóbbu nañ ko foofu ca kanamu procureur ñi ngi ko teg sous mandat de dépôt ñi ngi laaj nag Cheikh Omar Diop borom solution lu ko teree jël ay solution ci boppam ba mu génn foofu mu nekk en tout cas mooy li may wax borom solution yàllay kese man maa fi nekk nangam sàngam balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare loo mënul defal sa bopp mënoo ko defal doomu aadama kon askan bi ñoom ñoo war a yeewu ci dóorkat yu mag yi jàppee seen bopp ay borom solution ak borom nangam sangam ak borom yàlla fii kenn nekk fi yàlla rek ka fi nekk en tout cas muy kii nga solution nañ jàpp ni ci wàllu escroquerie boo xamante ni suñu sukkandikoo xaalis bi ëpp na lu toll ci ay fukki millions jamono ji mi ngi foofu su mandat de dépôt. Thank <laughs> you.